يناول القلب الشراب من ذلك الماء بالمجاب يناول القلب الشراب من ذلك الماء بالمجاب والقلب يحيي دون عاب وعن شقاء يحتمي يناول القلب الشراب من ذلك الماء بالمجاب والقلب يحيي دوناب وعن شقاء يحتمي إحياء مولد البشير يحمي العيال والديور فيه شفاء لصدور لكل هاد ينتمي صلى على خير البشر مخن ديم للبشر بالآل وصحب الدرر مع صلاة يحتمي يا ملمن خرفخا صل على من خلقا والخلق فاق خلقا kalxalxi wal du sallimi barke sëñ Tuubaa salaamaaleykum bokki àddina salaamaaleykum bokki murit yi ñuy seetaan bu ngeen gisee jataay bii di réew mi di réewum Argentine ci ay Zibur Média bi da ngeen xam ni gan gi ñu doon teeru ak si na muy sëriñ ak sa sàbb yéen ju rafet ji sëriñ Cheikh Sidil Mokhtar amoon ngir mu ñëw ci réew mi màggalu Mbàkke Kajoor yàlla jàppandalu ko mu jàppaat ko kanzu rajab yàlla dogalu ko dogal na nag mu ñëw ci réew mi ñu jàpp bis boo xam ni bisub sargal ko la mu yamoo ak télé sëriñ Bamba bi ci réew mi di def ab anniversaire ànd ko ak tele Big Deal ñu jël bis bi nag nu tudde ko Cheikh Sidil Mokhtar laay wax dara jaale ko daayira sëriñ Masamba Diop Sàmm di ci woo bépp jullit boo xam ne danga nekk ci biir réew mi rawatina it muriti sëriñ Bamba yi nuy ñaan nu ñëw jàpp nu ci bis biir sargal sëriñ ak sa Sàmb te xam ne rek ñoom jàngkatu xasida yi ñoom ñoo yeyoo lii kon ñu ngi ñaan ñëpp ñu teew ci euh, du ñu sori nag ci woote bi ñu ngi fi ak directeur kër gi sëriñ Badou Ndiaye dana yëkkati ci ay kàddu bu pare it dana jox soxna may mu woo mbokki soxna yi daañu ko wax nag ci langue réew mi ñu nekk ak uh, Modou Camara ñu miin ko ci Gambien kon dañuy jox kàddu gi rek jox ko Badou Ndiaye. asalaamaaleykum mbokku internet yi asalaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen a safoo Touba ànd kooku canal bi ñuy wax Big Deal ñu ngi am mbégte ak contentement di dalal suñu gan bu tëdd gi di ñu koy. a eh, Akassa Samb mi koo xam ne kenn dootu ko présenté sur le plan international ci li ko ci wàllu xasida sëñ Bamba yi ak teewal liggéey sëñ Bamba yi fépp ci àdduna tey ñoo am mbégte di leen yëgal trois ans d'existence Touba Argentine TV ak ànd kook benn chaîne bu ñuy wax Big Deal in the House ñu fêté anniversaire trois trois ans d'existence ñu ngi koy def le vingt trois avril fii ci hôtel Bawon ci salle bii ngeen gis bu mucc ayib bi ñu ciy woo comme ni ko góor a waxee daayira sëñ ma jàmm sëñ ma Samba Diop Sam ak bépp daayira bu nekk fii ci Argentine nga xam ne ñu ngi lënku ci fédération Touba Argentine muy fédération boo xam ne ëmb na 41 daayira ak kuréelu xaside yi ñu ngi leen ci woo di lance un appel a l'endroit de tous les Sénégalais ñu ñëw massivement jàpp ci bis bi te xam ne bis bi sëñ bambala bis bi bisub argentin yëpp la bis bi bisub sénégalais yëpp ñi nga xam ne ñoo ngi résider fii ci argentine ñu bëgg cee teral suñu gan gu tedd gii di Serigne Akassa Samb koo xam ne vraiment ñoom fii ci argentine suwerte la ci ñun ñoom ci argentine benn désir la boo xam ne depuis longue haleine ñu ngi koy waaj di ko méwér waaye yàlla tombeel ko ci bisi yi ñu jëm muy le 23 ñu war ko amal fii ci Touba Argentine TV ñu ànd ceek Big Deal in the House di ko xewal fii ci hôtel Bawon ñu ngi lancé un appel nag à l'endroit de tous les daayira ak ñëpp ñi nga xam ne jànkatu xasida lan ñu ñëw jàpp ci bis bi jëmal bis bi bëral bis bi ndax bis bi du bisu kenn ku dul Serigne Bamba parce que bis ñu ngi ko duppee sëñ ma Samba job Sam ñu xam taxawaayam fii ci ci yoonu murit xam taxawaayam ci yoonu sëñ mbamba bi loolu daal moo doon woote bi ñu ngi ci sàkku ñaan ñëpp di ñaanal ñëpp ñu fekk ko ci jàmm egsi ci ci jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah taala asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay eh, su ngeen gisee jataay bi comme sunu sang si fi jaar nañ ko waxee rek xam ne am na lu ko waral lan moo ko waral mooy sunu sang bu sel bi wàcc ci dëkk bi muy sëriñ Akassa Samb moo fi yegsi ñu war koo ganale tombeek nag eh, seen Touba Argentine Touba TV di def feetam le 23 kon mu yembo ñu di ci woon nag bépp soxna boo xamante ne bii yaa ngi ci tuuba Argentine ak li ko wër di dégg sunu kàddu euh, ku ci mel ne jëwriñu jigéen ñi tànn sa fi caam soxna Ndeye Khady Gueye ñu ngi leen di woo suñu leen tuddee rek euh, tudd nañ ñëpp xam ne bisub xasida yi ne moom euh, bisub ñëpp la ndax murit moom amul lu ko gën a kowe xasida rawatina nag koo xam ne dafa jege ba Sénégal bàyyi ay yitteem ñëw ngir bëggal ñu rek ci xasiday sëñ Bamba yi nga xam ne euh, Serigne Touba ne woon na Cheikh Massamba mu ne ko Mbàkke mu ne ko na ngeen fonk xasida yi te xam ne sama yàpp yaram laa dagg jox leen kon loolu rek war naa tax kenn ku nekk loo jàpp nga bàyyi ko te ñëw teewe si waxatuma nag moom mu bàyyi yitteem yëpp jël dundam géppit jox ko sëñ Bàmba jël dundam géppit def ko muy xasida mm-hmm. kon képp koo xam ne soxna nga fii di béggee soxna jaara rawatina waa daayira soxna jaara waa daayira maam fa waat wele suñu mbokki tijaan yi ca bopp ba soxna ndey si ak ki ci topp ñu ngi leen di woo ak tànday ja ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo daal képp kuy béggee dégg suñu kàddu rek di béggee xasida ñu ngi lay woo ndax Argentine moom yàlla daa dogal tijaan ak murit ak xaadir ak laayeen ñëpp benn lan ko ci xewle rek ka ca dese xewle kon tànn ja yow ak ndey si ñu ngi leen ciy woo tànn ndey xaddi tàn sa fi caam yéen ñëpp ñu ngi leen ci woo bis baa ngi noonu seen bisa kon bismillah sëñ ak saa ngi nii moo koy jàng na ñëpp teew dina mel ne ñoo nga Touba daal du namm daray tubaa incha allah rabbi wasalaamaaleykum wa rahmatullah dañu jël na kàddu gi jox ko sëriñ ak sa sàmb ginnaaw bi nga xamee ni ni mu ko waxee bi mu wàcc ci aéroport bi bi ay mbokki bi amee yéene ngir yóbbu ko ci ay réew mu jàngi mu ne day du génn réew mi jàngi fenn ca demul siyaara ji rasulillahi ba ñëw bi mu demee nag yoon woowee barkeel na ba tey ñëwam fii defe naa ni mu ko waxee ci aéroport bi mooy juróom-ñaar fukki réew yi mu ñëw fépp fu mu dem nag sargal nañ ko fa kon ñun waa Argentine bis bi day ñun ñi nga xam ñoo ko taxawal soxla wuñu ci dara lu dul mbégum sëriñ ak sa sàmb kon nag bu ko defee dañu koy taatan suñuy kàddu murid sëriñ bàmba yi ci réew mi woo leen it ci bis boobu yi sa ñàkk saa auzu billahi mina sheytaani rajim wa inni u'iizuhaa bika wa zurriyatahaa mina sheytaani rajim rabbi auzu bika min hamazaati shayaatiin wa auzu bika rabbani yahduruun allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-faatihi limaa xuliqa wal xaatimi limaa sabaqa naasiril haqqi bil haqqi wal haadii ilaa siraatika al-mustaqiim wa alaa aalihi haqqa qadrihi miqdaarihi al-aziim asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi rawatina bokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu di leen siyaare siyaare bu tedd boo xam ne am na tàmbali waaye amul yem waay di leen siyaare te siyaare bi ñu siy jiital sëriñ Cheikh Mati Lay Mbacke moom sëriñ Abdul Aziz moom Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbacke ibnu Xaadimu Rasul di am mbégte mu tedd ci indi gi indi ci réew mi dëppoog tuba Touba télévision Touba Argentine télévision di di taxawal guddi gu mel nii ci réew mi ngir sunu jëmm yu xeebu yi ak di feete it ñetti at yi nu am ci liggéey bi ñuy liggéey jaare ko ci dëkk bi ak bokki taalibe yi ak réew mi ñu nekk di Touba Argentine waaw ñu tuddee ko sëñ Cheikh Mati lay Mbàkke it teg ci nga xamante ne nii coono bi mu am ci ñun ngir ñu ñëw ci réew mi yëg naa ko ci xam naa ko jaare ko ci sunub liggéey dara jaale bis bi it sëriñ Masamba Diop Sam te sëñ Masamba Diop Sam moo jëkk a liggéeyal sëñ Touba moo jëkk ànd ak sëñ Touba moo dapp moo damm gopp sëñ Touba moo jëkk jël boppam jox sëñ Touba wàcce sëñ Tuubaa ci lépp ni ko gis naa ni sas wi ñu ñuy sas sa bos ngir nga di ko bàyyi day metti ci ak sa kaamil bi ngay téye dama bëgg nag ngay téye kaamil bi te sa ma bay sama sas bàyyale sa sas di ànd ak sëñ Tuubaa moo bokk ak nekk sëñ lu mat ay at yu bari bokk ak moom benn lal ba yàgg mu ne ko xam naa ni yow doo ko ni doo koo xamante ni dañoo war a bokk ak moom laal ni ko lal baa ngoog bàyyi naa la ak moom ni ko bàyyi naa la ak sama jëmm àdduna ak alaaxira sëñ Tuubaa ni ko ëllëg gënu jëm danaa bay sa sas ba yàlla sa sasu waa kër ma ko Masamba mu ne ko Mbàkke mu ne ko ëllëg gënu jëm danaa la te xel may la mbooy yoo xamante ni danga ko dëkkee ak sa waa kër ci àjjana ba mu des kon kooku bu ngeen ko duppee bis bi maa ngi ciy woo bokki taalibeem yi nga xamante ni ñoo aju ci kër sëñ ma Seex ma Jóob Sàmm ak bokki taalibe yi aju ci kër sëñ Tuubaa gépp maa ngi leen ci woo bu baax a baax di ci woo bokki jànkati xasaayit yi dëkk ci dëkk bi muy le 23 fii ci ci Buenos Aires hôtel Bawon bég naa lool maa ngi ñaan ku fi dikk suñu borom faj saajo dikk gi ak ñëw gi ak gisante gi ak yéen na ngeen seere ni mooy suñu texe àdduna ak alaxira li ma leen ciy fayee nag ak li ma ciy fayee mooy ñaan yàlla mu faj aaju mbindeef yépp ku fi teew suñu borom defal la yërmande adduna ak alaxira am naa yéene gis leen am naa yéene xool leen am naa yéene jariñ leen waaye suñu borom mi ko man ñu ñaan ko mu defal nu ko ci daraje alxuraan xasaayidi barke muxaddamatul amda wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu hola buenas noches le mandamos un um saludo a e para avisarle sobre el cumpleaños de Touba Argentine TV muchos de ustedes saben Touba Argentine TV es el canal, uno de los canales más importantes de la comunidad africana que está en Argentina. Lo mismo que el canal de Big Deal in House. Y hace como tres años que estamos en el mercado, que estamos haciendo videos, que estamos haciéndole a usted saber nuestra religión y nuestra cultura. el día lunes de abril, le estamos invitando a todos para asistir el gran cumpleaños de los dos grandes canales que están acá en Argentina para la comunidad africana, más que nada para la comunidad senegalesa. Y también tenemos un gran cantante, un hombre que es uno de los mejores cantantes religiosos en Senegal, que va a venir acá a pasar este cumpleaños con nosotros. Así que, no lo perdas, porque eso si lo perdes, no hay manera que puedes saber qué es lo que pasó acá. Así que te estamos esperando esta noche. Venite con tus amigos, amigas y a disfrutar ese grande momento. Gracias. ينور القلب شراب من ذلك الماء بالمجاب ينور wal xalba yuxyi doona ab waan shaqa in yaxtami ينور الخلب شراب من ذلك الماء بالمجاب والخلب يحيي دوناب وعن شقاء يحتمي إحياء مولد البشير يحمي العيال والديور فيه شفاء لصدور لكل هاد ينتمي صلى على خير البشر مخن ديم للبشر بالآل وصحب الدرر مع صلاة يحتمي يا مل من خرفخا صل على من خلقا والخلق فاق خلقا كالخلق والتسلمي بركة سنتوا